leen ak jàmm ci wàllu campagne octobre rose jigéen ñi nekk ci syndicat des enseignants libres du Sénégal ñu amal ab bésu dépistage jagleel ko cancer wen ak cancer buntu butit njurukaay amal ab journée may deret mu nekk ab activité boo xam ne li ko sabab mooy fexe ba xeex cancer yi waaye tamit jàppale maladie bu ñu sukkandikoo ci Aïssatou Koli Gaye mooy représentante vie syndicale bu SELS A bu Guédiawaye ñu teewlu ko ci micro Denisia Sambou dafa métti waaye woote ñu wuy si la nag dafa neex te macha allah nit ñi wuy si ñi leen di jaajëfal si loolu di leen wax rek ne àdduna yàggul waaye lu mu yàggadi yàggadi nit ku nekk war ngaa fexe ba sa dund bi mu fi dund ñoom ci loolu nag ci la CELSA bi nga xamante ni famille lañu jóg ci octobre bi nga xamante ni ñëpp xam ne ne ñi ngi feete octobre rose di si dimbali jigéen ñi di leen waajal li nga xamante ni dañuy ragal ëllëg mu doon gàllankoor ci seen dund mu nekk cancer di jógaat tamit ci bis bii di ci maye deret ndax bis bu nekk ay nit soxla ko te du ñu gis ki leen ko may muy nekk ay problème looloo tax ñu organiser activité bi nga xamante ne région bu Dakar ñoom ñoo ko organiser muy section wu Guédiawaye ak Dakar Rufisque Thiaroye ak Kër Massar muy nekk journée bu am solo nag parce que def nañ seen kéem kattan pour journée bi réussir donc loolu lañ leen jaajëfalee di leen ñaaxaat pour ñu ja gën a jàppoo gën a àndoo gën a booloo ndax am na loo xamante ne mi ngi suñu kanam ñu dëgmal ko muy élection de représentativité yi te bu lu ñu gën a booloo victoire bi ñu gën koo mën a savourer bis bis bu ñu ko génnee. initiative bi le nag dina tax ba jigéen ñu bëri xam seen statut maanaam ndax am na ñu feebaru cancer wala déet moo tax secretaire général bu CELS à Pape Mbaye Marie Sylla jàpp ne lu ñu war a wëyal la di ko amal at mu nekk ñu teewlu ko ci micro Denisia Sambou. dañu daje tey ci CRFP de Rufisque pour euh, fêter célébrer octobre rose nga xam ni jigéen yi nekk suñu organisation syndicale mu tudd CELS authentique dañu nekk ci région de Dakar ñoo dajale seen bopp dajale seen ay moyens pour pour organiser ko octobre rose ku ci nekk xam na ni mois la bu ñu jagleel xeexu cancer ween mais dama wax léegi ni su ci jigéen ñi njàmbaasee xeexu canceru col de l'utérus boole ci maye deret dafa mel ni dañoo def yett mboobaale loolu ma pense que lu am solo la également parce qu'elles ont fait en réalité d'une pierre trois coups également day wane ni suñu syndicat muy Sels authentique nekkul syndicat boo xamante dafa nekk rek revendication yi syndicat la boo xam ni lépp luy soxal jàngalekat ci wàllu formation wala ci wàllu wér yaram organisation syndicale bi taxaw na ci moo tax ñi profité ci occasion bi vraiment di sant bu baax suñu camarade secrétaire général national monsieur Mballo Dia Thiam bi nga xamante ni moo yore centrale syndicale bi tudd FGTSB muy fédération générale des travailleurs du bi nga xam ne moo moo ëmb lu ëpp ci ñuy liggéey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 Bonjour chers auditeurs, dans le cadre d'Octobre Rose, des femmes du syndicat des enseignants libres du Sénégal ont organisé une journée de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, plus un don de sang, une activité pour prévenir et lutter contre les cancers mais aussi soutenir les malades. Aïssatou Koligay, représentante de la vie syndicale de la section de Guédiawaye est au micro de Denisia Sambo. Mesdames et messieurs, la vie est courte devient moins belle, il faut savoir trouver la force pour que revienne le soleil. Savoir que le plus efficace des médicaments réside dans le cœur des siens, l'amour des proches. Leur soutien est le plus doux des remèdes pour un lendemain meilleur. C'est dans cette dynamique que le CELSA, cette grande famille, a décidé d'apporter sa pierre à la prévention et la lutte contre le cancer par une journée de dépistage d'une part et d'autre part par un don de sang pour soutenir ceux qui en ont besoin. Le CELSA veut assurer sa disponibilité et sa collaboration en tant qu'acteur incontesté dans la vie sociale et professionnelle de ses militants. Je ne saurais terminer ce discours sans pour autant féliciter, encourager et remercier le CELSA de la région de Dakar, composé par les sections de Guédiawaye, Dakar, Rufisque, Thiaroye et Keur Massar. Elles n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité qui entre dans la mise en œuvre de leur plan d'action. C'est une initiative qui va permettre aux femmes de connaître leur statut, a soutenu le secrétaire général du CELS-A, Pape Mbaye Marisila, qui soutient que cette action est à On l'écoute au micro de Denisia Sambou. Tout le monde sait que le mois d'octobre est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Si en plus du dépistage du sein, les femmes font également un dépistage du col de l'utérus et un don de sang, c'est qu'en réalité, elles font d'une pierre trois coups. Cette activité pour nous est extrêmement importante parce que nous l'avons dit, elle va permettre de faire un dépistage pour voir l'état de santé de nos mandants. Ça pour nous c'est important et ça montre également que notre organisation syndicale est une organisation de rupture qui, en plus de revendications, s'intéresse également au bien-être de ses militants. Ça également, je pense que c'est important. Nous sommes dans la formation, mais nous sommes également dans la préoccupation de l'état de santé de nos militants. Nous pensons également que cette activité, qui est une activité importante, est inscrire dans l'agenda de notre organisation. Donc c'est une activité qu'il faut pérenniser. C'est la raison pour laquelle nous profitons de l'occasion pour remercier le conseil syndical régional de, Dakar, parce qu'ici ce sont toutes les sections du service authentique de Dakar qui sont présentes, mais également remercier la Fédération Sénégal, qui est la centrale à laquelle le service authentique est affilié et qui est dirigé par le camarade secrétaire